Thiès ci euh, fekkee formation wu euh, euh, juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay agents ñu wax BERAC man ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy gérer souvent dossier enseignants yi ci IEF yi muy juróom fukk ak ak ñeent mais aussi ci IA yi muy fukk ak juróom-benn li tax parce que xam nga léegi paquet bi qualité la wax waaye it am na étude bu jéem a wane ni agent yooyu dañ leen jëlee ci classe yi rek. for far leen beerage su ko defee ñoom dañuy ñëw toog ñu war a gérer ay dossiers reclassement war a gérer ay dossiers même examen concours et cetera euh, si bien que euh, enseignants yi bëri dañ daan réclamer ne ah ñun kat suñu dossier lañ dafa réer wala ñu ko juf et cetera wala dafa am ay réer ñu leen ko retourné donc euh, ministre santé yi ñun direction de la formation de la communication pour comme comme ñooñu ñoom amuñu benn formation initiale ñu def ñu former leen. moo tax ñu attaché wu donc benn cabinet bu ñu wax Yuman ñu commencé fii formation bi Thiès waaye formation nag dafa am ay dañ ko niveler tey ay bassin la après dina am tey jii donc tronc commun la ab na am bassin am sous bassin waaye yëpp dina am plateforme de euh, boo xamante ne bi formation à distance en même temps aussi dinañ def ay ay soutenance pour wane ni euh, ministère bi ak jël na problème boobu fas na ko résoudre parce que suñu agent yi fokk ñu former leen parce formation bi sax dama ko wax léegi français dafa am solo ba nga xam ni mën na wàññi sax perturbation yi parce que agent bi mën nga ñëw ci ni nga koy accueillir ci ni ngay traité dossier am ci ngay diligenté mën nañu sax indi ak mer mer goo xamante ne bii bu demee ci benn syndicat mu wax ko bu ko defee coow coow yu ni kur ay ay grève mën ci indi donc ñii moom formé leen dafa nekk lu ñu war moo tax ñu nekk ci. farata waaw farata bi bu mag la. <laughs>